Iñaku kaka kaka yii yow yow xanaa wóoroo Baye Fall Baye Fall Baye Fall Baye Fall la mu ñax jëm am Baye Fall yow xamee naa la bël nga waaw xamoo mbël yëpp mbël yëpp mbël yëpp ay ay Baye Fall la ñuy doon ci kool gi eh, bàyyi la rek Baye Fall laa la wax da ngaa leew da ngaa war a wóor na ko bàyyi. fii fii fii sa palaas sa palaas sant wa yow xamee naa la ci kon bi waaw kay ah, xamee naa la kay kay kay kay kay nga jàpp baaxul la waaw moom ah waaw day dof dof lu du xam nga xam naa lay du nga da ngeen doon lamb waaye tey ah, nag xam naa lay waaw sax baabu lu ñu jot yow eh. ah, eh, eh, ay jàmm yow yow moom moom moom boo boo bëggee dund da ngay noppi rek tey tey tey moom tey moom tey moom yaa yaa yaa moom da ngay rek ma lijjanti ko mënoo sportif ma dellu ci sama kurus ga ndax lii man li ma koy lijjantee sax dina xam waaw hmm? waaw gay fii ci koñ bi la de. dama lay romb nag dama lay romb ngay sikkar say sikkar jaamu sa yàlla toog jaamu sa jaamu man daal loolu laa man nag li la dugal ci situation bi ñoom ñi. ñoom la. kii dafa ma tooñ. kii la àndal waaw. ñu rombuma may dox sama dox ñu naan magum jëmm toll ni yow doo wóor. da doon lekk si kër day wax ngay wax yow dafoo. dafa doon bi gis nga ñi xam nga la mooy problème bi. waaw yàllaa ma leen jox de. Mhm. yàllaa ma leen jox yàlla nag du lu mu la jox rek nga sànni ko. seen yaay dafa dem ba ma ak ñoom ñu dudd ba tool ni indaale wuñu xel dof dégg nga eh, taxawal da lay rey kay léegi nañ andi wóor nga nit ñu naan ko ñun ñëpp comme que man wóor ma yéen ñëpp ngeen dog ñu naan ah wóor de te dama di mag man ndox mi ñëw man tooñu ma la eh, nañëw man tooñu ma la man ndox mi ñëw eh! sëñ bi man tooñu ma la de sëñ bi yow fii nga jàpp baaxul mu may lay de da nga koy rey de yaa ngi koy xoj indi ndox mi indi ndox mi ngeen naan imbécile indi ndox mi waaye yow nan ko naan te dund rek nan ko naan te ñu bàyyi sëñ bi yàlla seede na dama woor ba heure bi samay moom taam daam yàlla mu dox sama koor waaw yàlla yàlla daal yàlla laay waxal day waxuma ak wax ni yàlla damaa woor ba heure bi samay doom génn tooñ te wéruñu naanal nag ma bàyyi wax naanal damay leen ni eh. xolal xolal ku dugg ci sama dox koor man tegal dinaa ko jël yàlla damaa woor ba heure papa bàyyi yàlla na mu may lay gi waaw du ma wax li ma teel li ma tax a doon mu may lay mi mënuñu koo négocier nan leen nan leen da ngay ala la ko ma la ko suumu nga dogaale yaa dog sama koor nanal sëñ bi sëñ Tuuba waxul lii de nanal si maam Seydou Fall nanal oh kii Baye Fall la papa ko yow tey Baye Fall maa ngi naan barki yéen maa leen tuur ngeen di dog sama koor yéen. eh ñun doguñu sa koor de bàyyi faa la dog sa koor. sëñ bi maa ngi dog de. naanal naanal jox ko mu naan. wala jërëjëf jërëjëf. papa da ngaa wóor. da nga wóor da nga wóor. naa eh. eh. ko naanal. naa ko naanal. naa ko naanal. jox ko naaw jox ko. jëlul naanal naanal te dund. billaahi naanal te deseg sa bakkan naan rayul nit waaw deux naana naana naana ajul naaju naka naaju naanal ok naanal naan rayul nit naan naanal na naan waaw naanal ku ëpp li mu tooñ ci ñoom moom moom waaw naanal naanal naanal naan eh, sëñ bi kii mi ngi affaire la mooy ñëwaat di ñëwaat boppam naanal tudo pelin bi la affaire ah, la mooy ñëwaat dal boppam eh, naanal tudo pelin bi tudo pelin bi la ngaangal téena ngaangal tudo pelin bi la sëñ bi mi ngi dem tudo pelin waaw waaw waaw ñëw nga ngaangal ngaangal la ilaha illallah sëñ bi kii kii mënatul de dootul dem toog toogal naan jox ko naanal papa yow naana ko naanal te du yow yaa naana koo di eh, naanal sa papa naana ko dina mën a tooñ e naanal dinaa naan man Baye Fall laa si Ibra laa gëm déedéet xam ngeen moom tey de moom bii balaa ngeen cee génn wax lu set naanal naanal wooro naanal eh. naanal te dund ah, ah, kii am naana naanal naanal naana naanal jël day set naanal doon deux trois ilaha illallah ajal ajal naaju naaju naaju naaju ajul ba nga sukk yow ba nga sukk ajul ba nga sukk waaw ajul doxal sa papa doxal sa eh yéen a ko eh doxal sa sama yoon nekk ci yéen a ko sama yoon nekk ci yéen a ko doxal sa papa eh na na na doxal sa papa doxal sa papa papa bu ndaw de papa am sama papa day daw ka ma jàpp papa bàyyi ma naan naa fay bàyyi ma bàyyi ma naan bàyyi ma papa bàyyi ma papa bàyyi ma bàyyi ma naan naa fay sëñ dama lay expliquer benn man tooñu ma la maa ngi sama biir may naa la lekk tooñ ma la nana la nana la fi mu toll nii yaa may mujj a toog waaw nana la yaa ngi doon sama koor nana la kii dañ kaa dóor ale eh. nana ngay kafuli eh, waay waay waay waay naan sama koor gaa ngi dox waay nana la nana papa na jóg waay waay tooñ ngeen ma ma dox sama koor deux deux papa naa la da ngeen di mën a tooñ naa leen wan ku mën a tooñ ñu koy def te pare gu ma si yéen de papa dox nga waaw dox naa kay dox naa de pare gu ma si yéen de waaye baal na la nii jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ah. jërëjëf waaw xam naa lii kay ku ko def nit beneen yoon da ngay koy nanga koy rey moom lii kay ngi nga am nga xolul def lu nii moom bu beneen yoon tey danga ñuy suur lii kay man xam naa ko nga gis nga déegaa ngi nii dama ñibbi dama ñibbi yow Baye Fall dama ñibbi papa yow doo àll sax yaa sama yaay yaa sama yaay dégg noppil jërëjëf Fall jërëjëf Fall. yar leen jërëjëf Fall. Fall Ndiaga yaaram jërëjëf. yar leen de. waaw yaru nanu de. laay Fall ak bëgg seere Fall. ma ne yar leen de. yar naa leen de Fall. yow de dootuñu la xool Fall. ok Fall ñu gunge la Fall baax na Fall. Fall Fall. Fall ma ne. ah ah baax Fall. Fall. ñu leen Fall rek. ñu leen Fall Fall Fall. Eh, toog. ay waay waay toog. toogal toogal toogal toogal toogal toogal man kay toogal rek toogal. xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral xaaral jaxasal jaxasal jaxasal. jaxasal yow jaxasal dof bi nga doon. toogal toogal man kay ngeen toogal simb leen simb leen dànq leen dànq leen sax leen sax leen sax leen. sax leen saxal yow. sax leen sax leen sax leen sax leen sax leen waaw saxal saxal saxal saxal saxal saxal waaw koy wan leen da koy gën a dëgëral rek ngeen toog leen sax koor tey mën ngeen mën leen koo toog muy def muy. na na na na jàll na eh, bul bul na jàll na jàll waay waaw góor waaw góor waaw góor dof nga rek dem papa ji lekk nga suuf si nga koy lekk dof bi nga doon da nga dof waay yow waaw suuf si daa saf ak suukar xaa yaakaar suukar oh, oh, koor gi tey sax na loo xam ci koor gu saf yow wóoruloo def loo dara na ay koor gi saf na. man waxuma saa baaxul de damaa gis mbéy mi gars yi koor gi ni muy safee si ñoom. koor gi dafa métti kay bu naka te yow sax dama xuloo ak yow waxoon naa dootuma wax ak yow. yow lala nan nga amee sa rakk ba pare di ko dóor xoolal fii keroog nga ma jàpp dóoroo ba ba gaañ ma ci loxo ma bëgg dugg ci douche bi sama biir bi di daw ma njambale ñëw bëgg a dugg nga ne ma doo dugg ah, damaa woo boobu damaa woo ba fankalu boobu fankalu mugum jëmm. Ah. ah boo xam ni am benn mu def loo xamante ni tegoo ko fenn. fankalu mugum jëm. waaw. dem yow yow yow yow si woon na ko wàll. nga door ko bu la ko woon door. loola taxoon ma ni duus bi kenn dootu fi duggati. kan kan kan ma def parce que duus bi dañ ci doon yënduwaate. yëndu waaw te léegi ginnaaw dañ fi yënduwaate. ma tëj ko. eh eh bàyyi si dof yi ngay wax fii kan moo fi nekk ba yëndu fii man maa fi nekk ak yow ak sama papa ak ku jigéen ki locataire bi man ay yëndu. waaw kan ma fi yëndu yow xamoo yow yow fekkoo moo tax xamoo yow wax dof rek nga yox yow mii yow yow da baax rek boo fekkoon affaire lu mu demee waaw léegi waaw léegi nan la affaire demee moo fi yënduwaate kan moo fi yënduwaate nee ma nee ma naa noppi kan moo fi yënduwaate ah nee ma noppi yëndu fii ci dus moo fi doon yënduwaate kii waxul waxu dof de waxu nit njaay lay wax nee yow da nga dof bopp yaboy kan moo eh. kan moo fi yëndu waate ma ne la wax waaw yëndu kan la eh bu lekk yow xanaa eh kaay kaay kaay kaay kaay kaay sax mu sol gis kii mool na de eh noppi nga lii yow ba weeru ko koy seet. man Jeynaba laay seet. Jeynaba koo seetee nii. yow xanaa wooroo. bañ a nii ngay woore. sa cër yëpp nekk ci biti. yow boo wooree nii lañ la jàngal te ngay def. kër gi yii du fi dugg. mënta ne léegi nag demal ci biti. man mii fi a sori. waaw doo doo gis Jeynaba ma ñëw mu ne bu ma dugg kan moo ko xanaa moom mi eh Cheikh. te war ngaa wax yow. lan la dama ndax war ngaa wax kii kii la mooy mu la moo ci nekk. waxal. lii dama koy tere ci kër gi. taw nappi. na nappi. waaw léeg-léeg. Euh, jaay na ba. Eh, léeg-léeg eh, eh, safi aywa damay jàmm. yow xamoo sa bopp yow. Euh, na nga ne yii kii sol dama koy tere ci kër gi. danoo nekk ci weeru koor koñ bi sax waxtaanoon nañ ci nañ nañ ko bàyyi kii xam naa ne dëkku ci kon bu fi dëkkoon danañ ko gaañ ndax ñu dëkk ci koñ duñu def lii lii mu sol wiwul mu dagg fu ne xam nga ne kii yaram waa ngi may jam bii maag yow ay wax hmm. lii da ko fi tere wala tere woo loolu laa bëgg a xam yoo xamoo ne mu oh. dugg mbaa mu dem benn nga ci tànn oh. ah bu fekkee sa invité la kay man sa invité la yaa ko woo yaa ko. mag bu amee sutura moo ko bàyyi bopp. ñaar xam na ma ay ñett xamul jàng rek ci biir. ñax ci kot. eh ñax ci kot kay. Hmm. waaw. li ma lay wax. waaw waxal rek laa dégg. gis nga kii. waaw. bu fekkee tey bu fekkee tey moom mënta nekk kilifa. waaw. na bàyyi. si laissez yow. li wax li wax bu fekkee du jëf sax di nga ko mën a xam ndax yow dégg a falaas laissez si teel wàccee ci suuf. nekkatoo kilifa kër gi man maay kilifa kër gi. waaw parce que man kuy yënduwaate ci ay douze man du may ne kooku du ma jiite. voilà yow sànq bi li jaañ wax waxi yëndu kan la. kii dee na ma moo dugg ci douze di sangu mu nekk fa di ma toog ma toog fay di doon jàpp jàpp de laa doon jàpp. fa nga jàpp yow yaa doon yëndu ni wóoroo man de laa doon def mu ni ma dama doon yëndu kii. yow ma dama xoolal dama xoolal waat waat naa naa ko ci sëriñ bi may waaj a jébbalu. waaw dama ko mbëkkal ci ci buntu douze papa yow weeru koor weeru fekkoo ma may jàpp yow falaal fekk yow ci buntu duus bi may jàpp yow satala gi nga teg ko fii dem ci buntu duus waa fekkoo ma ak satala foofu fan foofu fa ma toogoon yow bàyyi sa dof lii waaye sax papa eh, kii li mu lay wax dëgg la li mu lay wax dëgg la yow mii da ngaa woor ba ngoon dem fële di yor eh ñànku bàyyi jàmm dama koy lay bul ko rey bul ko rey bàyyi ko bàyyi jàmm bàyyi jàmm bàyyi jàmm bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko ba jàmm waay yow wa baax na baax na mu tey yow ngay yéen waat ni dégg naa leen wa baax na yaa nekk di yéen waat yow wa baax na dégg naa leen dégg naa leen dégg naa leen def leen yàlla yow ba ma jul dina la rey ci kër wa def leen wa baax na def leen leen neex ta ba maag sama bakkan rek comme que léegi daal da ngeen may attaqué taal sa loxo ba bàyyi bàyyi dégg naa la nga taal sa loxo dégg naa la ñànku eh taal la mel eh ñànku baal ko eh. baal ko baal ko may ma baal ko taal la mel dégg naa li nga wax loo ko déggee jëfee ka taal la mel dégg naa ni di nga wax léegi jëlal kilifteef bi fi di yër mu waate di def ay yu kenn xamul jëlal kilifteef di nga toog taxaw fi taxaw fi kër gi toogal non waxal yow la nga yër nduwaate soo yër nduwaate dégg dégg eh, dégg dégg ma gaañ da yow toogal xala waaw maay kilifa gi ah loolu nga wax. waaw waaw. dafa defal leen joxe dépense nag ak lépp. kaa jox. déedéet jëlal. toog joxe dépense yeeg. baal naa la toog na toog na baal loolu bàyyi ko dégg nga. yëndu du yëndu. xala xala baal naa la dégg nga. mu ne ma wax papa yow wax na la toog di jàpp mu ñëw laaj ma xaalis ma bañ rek mu sosal mais yërnduwoo yërnduwoo déedéet du ma waa léegi waatal waata da mii <laughs> <laughs> ñii dalal xel laa leen yóbbu mënumaa bokk ñoom kër tey na ba li ma bëgg def moom ci kër gi yëpp mënumaa bokk ak ñaan die formuleert.